الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تي أجا واو أجا jërëjëf mbokku téléspectateur Kossy TV télé Medina bay télé askan bi télé àdduna cosaanu faydu bi réaction Medina Baye waaye jàkkaarloo kenn si caatu Mawlana Cheikhul Islam Aji ibrahim Niass bay bay mbay MC defon fi déclaration bu am solo mu ne buñ caaxaanee ba jël suñu réew mi jox ko keneen ko xamantene ne nga yalla xam doyna ndax ñun position buñ nekk sax ñun tudd tur Baye Mbaye tey luy xeeñ lo xamantene ne deug tay aduna bi ñu ngi koy rafetlu ni ñu commencé civiler ban kaddu nga am gannaaw boo defee sa appel senegal dégg la. Euh, kaddu bu njëkk bu ma am mooy wax alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi santaat yàlla bu baax di sant yàlla bu baax mbooleem sant yooyu nag yëpp nag ma jël ko jox ko ki ma fekk ci lëndam dugal ma ci leer ku xott sama xol def ci yàlla muy mawlaana cheikh al islam El Hadj Ibrahima Niass damay wax rek ne la doon wax rek moom laay waxaat di ko firndeel dañoo toll foo xam ne ci Kaolack dañ fay fekk suñuy bàjjan suñuy baay suñuy maam ñu dund Kaolack boobu ba léegi ci ay mille neuf cent ba léegi Kaolack musta changé yàlla def ñuy dem di dem di dem ba tey jii yàlla may ñu koo xam ne mën nañ ko tiitaroo mu nekk nongam daara ndax jàngkatu tubaab yi toujours dañuy yaakaar ne ñun jàngkatu alquran yi waruñoo mun a yore réew tey képp koo xam ni jàngkatu daara ga tiitër la ci yow nga tiitëroo sëriñ buub ci boppam ndax dafa investir ci biir Sénégal ci réewam teg empreinte am wane nu mu mënee jàng daara jàngoo français international bi yëpp xam la ci liggéey kooku kon su demee ba ne soxla na Kaolack ñëw Kaolack fekk ñu ñu nekk Kaolack sonn lool mu indi fi ay financement jël chambre de commerce bi fekk ko ci cent cinquante millions yóbbu ko ba ci sept cent millions fekk kër de Kaolack gi ñëpp bàyyi ko xam nañ ne état moo ko moom mais nit ñi nañuy wax nit ñi luy dugg ci seen bopp yi nit ñi di mën a xam parce que dafa ñëw fekk état moom ko mu jël moom investir ci xaalisam fu mu nekk nii di gagné état di gagné kon loolu sala te tey suñuy tiitaroo foofu la ñuy tiitaroo parce que ku bëgg a noos foofu ngay dem noos te loolu moo gën a ndaw ci Kaolack kon suñ gisee liggéeykat bu mel noonu gis keneen koo xam ni mënuñ laa wax ne la lii ci liggéeyam wala lii ci lum investir ci Kaolack wala leneen bokkul waaye yaa ngi tànq di ñu jox ñuy naan parce que dang ñoo marloo dang ñoo marloo bañ mar loolu mooy maanaam xaalis bi dañ ñoo xiifloo ñun doomu Kaolack bañ xiif ñu ñëw di ñu sotti lekk gi di ñu ko suy ñu mel ne ay ganaar di tëb di lekk loolu moo war a jeex. bu nekk ba boo lu ne suñ kilifa yi xamuñ xew xamuñ lu xew am tey xamuñ lu xew beneen bi nit mi dina bàyyi feneen lay faale ban kàddu ko si am man loolu laa bëgg ñu génne ci wax jooju fii amul murit amul tijaan amul xaadir fii yàlla moo fi ne yàlla moo fi ne yaa ngi dégg yàlla moo fi ne yaa ngi dégg ndongob daara la gëm na yàlla tey am na ñoo xam ne tey ñu ngi wax ne ay taalibe baay lañ école bii ñu am moom la ñuy tiitaroo ndax suñ bàyyi moom la bàyyi pour xam-xam am na ñoo xam ne ay taalibe bàyyi lañ yor lu na gànn munuñ ci ñaar dërëm wallahi lazim te lu may wax du caaxaan ba ci ñun doom yi nga xam ne ñun la jur munuñ ci école bi ñaar dërëm kon suuf sëriñ bu taxawee dem defar école bi lu xew mu ñëw def ko gàmm lu xew mu ñëw def ko yaa ngi dégg kon kooku dañ ko war a delloo njukkal waaye waruñ fee toog di wax na ay nangam nangam la nangam la ñun ku fi nekk lan la moom ku fi nekk lan la taalibe tijaan la waaye du taalibe kër baay kon nañ bàyyi wax yu ñaaw yooyu nañ jàppante xam ne ñun ay mbok lañ ay bëggante te yàlla tax loolu lañ war a def pour gis nga yoon yi tariqa yi ñun ñëpp ay ndaala rek benn ndaala pot yee utee rek yaa ngi dégg ndaala pot yee utee kon kum neex nga dem tànk waaye ñun ñëpp ci ndaala lañ jëpp te ndaala mooy yàlla amaat beneen am beneen contentement sa taalibe sa sa xarit Ahmed Youssouf Bengelloune si département bi. wax dëgg yàlla ba ma ko gisee ci candidat yi dama kontaan parce que kooku mun nañoo wax ne doomu kër gi la taalibe kër gi la man kooku leer na ma kon su ma ko gisee tamit ndax ki ka tarbiyal sama xarit la sama mag la sama sama lépp la mu yaa ne caam yàlla def mu bëgg ma mu bëgg ma lool mu dëgg du chaque jour ajuma ñu daje mm-hmm. te maa ngi ko gis mu ngi ànd ak rek mm-hmm. ah, Youssou Ben Jelum muy Babacar sama trondo mm-hmm. maa ngi gis mu ngi ànd ak moom kon kooku su ñëwee tey war a gagné département bi damay wax ne lañ doon bëgg ñun yàlla def ñu koo defal ci keneen koo xam ni muy Ben Jelum ci boppam mu nekk taalibe loolu su leen neexee kum neex nga nga wax waaye man duma wax man duma ma waxantu man tollu foo xam ni waxu waya waya yi ñu waye di yooyu man nekkuma ci man parce que waye man du ma nekk fii di bëgg buzz ndax am naa buzz yaa ngi dégg parce gis nga kër gi gis nga kër gi muy Medina Baye Niass yàlla moo ma defal li ma fi nekk loo xam ni la du xam-xam du lenn waaye yàlla ma xoolal boppam xam ne man Cheikh Ibrahima Niass mooy sama sëriñ yàlla may ma daraja jooju tey fu ma romb muy murit muy xaadir muy tijaan ñëpp may bëgg parce que gis nga yar su nekkee ci yow nga yar sa bopp xam nit ki lu muy jar nga delloo ko cëram loolu yow boobaa nit ñi dañ lay delloo sa cër te man lool laa gëm gis nga gars yi li ñuy nekk fii man gëw leen la ñuy wax gëwuma ko parewuma di toog di déglu ay man ku waye di la dégg te fii dafa bëri ñoo ñoo xam ni ci ndaw ñi dañoo wayadi wayadi weesuwul campagne ngeen di xuloo di xeex ta ngeen nekk ay magar rak bokk benn maam wala bokk benn baay wala sa mag moo ko jur wala sa rak ngeen di toog di xeexal ay nit pour lan man du ma xeexal Serigne Mbuub du ma xeexal Mon Njaay du xeexal kenn parce que noobul la li ñu am maa leen ko ëppale kon la war a gëm nit loolu la war a gëm nit da gëm sa bopp man damaa gëm sama bopp ba may nekk xale ba léegi parce que noblesse ci man lañ koy fekk Cheikh Ibrahima Niass mënu maa jur la jor jur ma ba pare man may ñëw di jéem a waye dil sama bopp am am du dara yàllaay joxe kum neex mu jox ko kum neex mu xañ ko waaye bu mu la tax a jaay sa jinn ci man daal li may wax daal mooy gannaaw gañe nañ mhm. na raxma góorgóorlu ñëw jàppalante ak sëriñ boobu ndax Kaolack moo ko taxoon a jóg pour liggéey mm. na ñëw jàppalanteek moom ci xalaat ba mu amoon mm-hmm. alal jam amoon bëgg ko woon a def ci Kaolack paasewul mm-hmm. su fekkee ne pour Kaolack mel ni Paris rek mm-hmm. su ñëwee jàppanteeg moom day gën a neex kaddu gu mujj gi Kossy TV kaddu gu mooy Kossy TV suñu tele boo xam ne dañ koy tiitaroo ndax man bëri na ci loo xam ne su ma koy wax ci fii laa koy waxee muy tasaaroo ci àddina bi waaye damay wax ne toujours rek man gëm naa ne télé bi incha allah international bi dina ñëw ba gën a kawe bul yàkkamti dara gis nga nit dangay ngay gëm sa bopp looy dox nànk-nànk rek da ngay ñëw ba ca kanam te gëm naa ne incha allah ci kanam rek ngeen jëm Kossy TV maa ngi gërëm waa Kaolack yëpp jeunesse bi nag laay gërëm ndaw yi jërëjëf jëf parce que li ma li ma leen bëggaloon moom ngeen def te li ma leen bëggal mooy ngeen am ay société lu yoo leen di liggéeyee Kaolack moo tax maa ngi koy delloo victoire bi ndaw yi ci مرحبا alhamdulilah ça va alhamdulilah jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci mi ngi bayi mu nekk Baye Mbaye di caatu Mawlana Cheikhul Islam Hadj Ibrahima Niass Baye suñu soppe yi suñu xarit yi ñëpp rek jàppoon si bés bi ba mu egg si fii tey grand dadi ñoom ñëpp rek ñu ngi ñëw fekk la si seen soppe seen xarit Baye Mbaye borom kàddu gi nga xamante ne ni saa bu yëkkatee rek ñëpp bëgg ñëpp kontaan soxna si ban kàddu contentement moo ngeen am tey xanaa kontaan rek ndax buñ bëggee suñu suñu bee tax ñu bëgg ko parce que hmm. initiative jëfam dafa rafet miir na baay jale ñoo lew naa mu ndoor ak ñoom ñëpp a yem buy liggéey rek dañuy liggéeyal pour Kaolack ginnaaw nag tànn nañ sëriñ boobu muy doon maire de Kaolack ah wax naa ko bokk maire de Kaolack waaw ah, na liggéey rek liggéey de lañ ko ñaan Kaolack ñëpp xam li fi ne dara mosu fee jóg temps Ablaye Ablaye Diack la ba tey jii li ñu soxla ci Kaolack benn la muy assainissement mënu ñu ko xam mënu ñu ko am assainissement de Kaolack mënu ñoo fexe ba am ko jeunes yi liggéey lan mooy jeunes yi liggéey welo di dem ci ay ay meeting di fa def di fa may ay quinze vélo di fa may ay vingt vélo na jeunes yi liggéey loolu mooy liggéey Kaolack non non loolu liggéey Kaolack nañ fexee Serigne Mboup laay laay laay laay waxal ci li may wax nii nañu fexeel dimbali ci pooru Kaolack bi ndax xale yi mën na liggéey waay wallaahi la junne deux mille cinq cent ci xale weer ñaata la soixante quinze mille am na lu mu faj welo yi xale yaa ngi dee du liggéey nañu dimbale ci pooru Kaolack bi loolu lañ koy ñaan ku di ko félicité nag di félicité suñu sëriñ bi kontaan nag ndax ñëpp dañoo doo mu jël rek téye boo ci kaw kon nag yàlla ko yàlla ndon bi yàlla ko jik ci barke yun ci yàlla Mouhamed ci barke Cheikhouna Tidiane ci barke Mame Baye macha allah mu ngi waxee kàddu gi si buntu kër waajuram si buntu kër sëriñam si buntu kër xaritam si buntu kër baayam si buntu kër lépp di Mawlana Cheikhul Islam Aji Ibrahima Niass Baye yal na yàlla fayal ñu ko incha allah rabbi xam naa si kanam tuuti ñu dem ci kaw ci bir rew ak ci bitim rew en direct si Kossy TV jere ngeen jëf. aja waaw aja. Yéenay liggéey bay du bay Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd baay yéenay liggéey fay du baay bi ci ci barxama ñu ngi gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV yàlla leen